ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nu ñu koy defee àllarba bu nekk di leen dégtal seen émission bi ngeen xam ne mooy décryptage tey seen émission décryptage ñu ngi fas yéene waxtaane lu am solo ci réew mooy wàllu jàng fàttaliku leen am na émission boo xam ne defoon nañ ko fi euh, ba mbiri tagga tembe ci trouver ay solution ci li nga xam ne moo de anne scolaire bi ñu def ne yàlla def ci loo xam ne moo gën sénégalais yëpp rafetlu ko sauver année scolaire bi ba nit ñi mën a dem ci examen ñu war a mën a ñëw nag toogaat fii nat ban bilan lañ mën a tiire ci année scolaire bi ñu génn xool lan moo ci ay rëq-rëq ban jàngat lañ mën a def ci résultat yi ñu am ak it lan lañ mën a wax ci par rapport ak calendrier agenda bi nga xam ne état bi jëloon na ko ci engagement ngir bañ lenn yaa ñu ko diggoon defoo leen ko lii ngeen ñu waxoon sauvé nañ ana bi waaye loolu yëpp dañ ko waxtaanee tey jii si biir émission décryptage waxit ban jàngat lañ am ci résultat yi ngir waxtaanee loolu maam mbégte dalal fii ki nga xam ne mooy Cheikh Mbow kenn du ko présenté moom daanaka min na sunu plateau liggéey ci COSYDEP ci wàllu njàngale mi dina ci amay jéego yu mag sëkk yoo xam ne dox na ko ci ngir njàng mi doon de qualité ba pare ñu mën ko jot ci anam mi ñu ko war a jotee am mbégte dawal fii dàmboj dàmboj moom ñu nekk FEDER FEDER ëmb ay jàngalekat collectif bu leen ëmb la am mbégte dawal fi suñu xarit Sawru Seen SAEMS la nekk moom Sawru Seen kenn du ko présenté kenn dégg nañ kàddoom bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk syndicat bi muy jiite am mbégte dalal fi Moustapha Diagne Moustapha moom suñu xarit la moom it <laughs> miin na place boobu. Mohamed Moustapha ba teg ko ci. <laughs> waaw boobu sax moo gën a baax. <laughs> Mohamed Moustapha Diagne. moo gën a baaxati. Mohamed Moustapha Diagne nekk ci ministère de l' national nationale yor kaddu gi jàngat bu njëkk bi ma bëgguñu àndandoo def moo di xanaa ren de war nañoo mën a rafetlu. ndax daaw ci waxtu wi ni ngi doon wax wàllu fraude wàllu tricherie ci ay examen coow li na cour defoon ci émission maa yow saw ah xanaa ren de war na mën a rafetlu nag jël nañu matuwaay yëpp ba defe naa lu mel noonu kenn déggu ko ren en sawru ma jox la kàddu kenn déglu ko kenn déggu ko ren c'est ça euh, commencer d'abord par euh, nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan fii ci 2 yi rafetlu déjà émission bi profité occasion aussi nuyu la Pape Alé mhm. nuyu sama xarit Cheikh Mbow nuyu sama xarit euh, Damboj ak euh, le directeur Mohamed Diagne euh, Mohamed Moustapha alors wax ni effectivement comme ni nga ko waxee ñun organisation baccalauréat bi cette année am na ci loo xam ne rafetlu nañ ko déjà parce que mën naa wax ni processus bi yëpp directeur nouveau directeur de l'office du bac daf ñu doon convoqué. Mhm. invité ñu ñu partagé. très bien maa ngi ko doon wax sax spot publicitaire boobu nga xam ne dañ ci doon wax mbiru téléphone. avant mu koy lancé dafa woo organisation syndicale yi comme le G6 ñëw ñu waxtaan ci ba d'accord ci ay poñ. kon mun naa wax aussi euh, processus bi ak résultat yi statistiques yëpp daf ñu ko doon envoyé donc mu nekk quand même. Euh, dynamique partage boo xam ne ñun en tant que qu'organisation syndicale plus particulièrement au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire nga xam ne ci seen tur laay waxee mhm. lu nañ partage boobu Euh, démarche pour, pour inclusive démarche boobu. boo xam ne. alors boo boo xam ne directeur bi vraiment impli ne ko def def na ko ren ci li nga xam ne mooy examen wu bac bi maintenant il va sans dire que bu ñu duggee ci mbiru résultat yi. am nañ ci suñu position am nañ ci suñu gis-gis. très bien ban xalaat nga ci am daam rafet na de loolu. waaw parce que daaw heure bii ñu ngi doon wax ne bag bi dañ ko validé duñ ko validé. Mhm. ren jii ñu mën a am loo xam ne vraiment amul fu minoré nañ ko daal. <laughs> dëgg la dëgg la déggu ko ci. Euh, donc maa ngi lay gërëm di la sant d' abord di nuyu sama naataangoo yi euh, monsieur Diagne camarade Sawru euh, camarade Cheikh di wax ni FEDER kuréelu jàngalekat effectivement mais man je ma nekk secrétaire général CUSEMS A. Mhm. bokk ci kuréel gu ñu tuddee FEDER. Mhm. di ko coordonné. donc may rafetlu li nga wax nii Sénégal yëpp gis ko parce que ku gis nen ni nen a ngi parce que comme dañ doon ŋàññi ñun ñëpp daaw li doon xew mooy njombeli amoon ci niñ ko organiser baccalauréat bi ren ñu gis ne organisation bi baax na ak nouveau directeur bi ñu ngi koy ñaanal parce que dañoo bëgg rek réew mi dem. Mhm. parce que daaw ñun ñëpp bi ñu doon wax bëgguñu woon mu bon. dañ doon wax pour mu baax comme ñëw nañu changé ko mu ñëw def année bu baax ba wax ci organisation parce que moom la. comme organiser na ko te presque jafe-jafe yi ci am bariwul à part gi may dégg ay élèves yu ñu jàppoon cent vingt sept ou cent vingt neuf élèves. yu amoon ci téléphone. Mhm. mais vraiment gisuñ ci benn problème boo xam ne mën nañ cee teg baaraam. moo tax dañ koy féliciter di ko ñaanal muy organiser baccalauréat xam benn coow du ci loolu mooy indi Cheikh ne lépp lu ñu mën a wax rek bu démarche inclusive participative amee rek defe naa ñu am solution. waaw Pape je crois que li nga wax mooy loolu peut-être nga may ñu nuyu aussi ñuy ñuy seetaan ñaan borom bi leeral xel yi ba lu rafet juddu fii. Mm. nuyu Sawaru daam ak Diagne. Mm. di la yëgal aussi que man maay bii je crois que mooy émission bi ma gën a neex si ma invité parce que invité ñu période boo xam ne vacances la ñu nekk pour ñu waxtaan ci mbirum jàngal jàngale. Mm-hmm. période boo xam ne amul crise ñu waxtaan ak dal. Mhm. je dama leen ko diggoon ah en tout cas dama leen ko diggoon nee woon naa leen lépp dama koy topp. dama koy topp ba moom ma ci dàqal ci émission bi très bien. Eh? li xewoon ah, woon plus que fraude. Mhm. donc c' était au niveau du ministère de au niveau du service centraux si la ñu waxee ni fi la affaire bi sennee. Mhm. ba xale jot ci avec whatsapp bi mu tasaaroo. donc loolu nag ministère gëstu na ci comme di nga wax avec une démarche participative et inclusive. ba ñu commencé di ko saafara du fa nekk lu ñu rafetlu il faut consolider et approfondir maintenant je crois que wax nañ ko aussi peut-être que li ñu seetlu mooy li xew Thiès avec plus de cent élèves yoo xam ni malheureusement pour ces histoires de portable mujj ñoo def seen baccalauréat euh, loolu aussi xëy na il faut ñu ci njàngat ah il faut ñu si njàngat seet nan la ñuy mën a aussi bu ñu jëlee ay mesures pour euh, interdire yenn yi nan la ñu mën a accompagner xale yi ah c'est important moi j'imaginais par exemple que bu ñuy surveiller que xale yëpp teg seen bagage ci kanam yu demee noonu ça permettrait que sans élèves yooyu sax xëy na mën nañ cee bañ a fekk ci sanction bi nga xam ne dal na leen yoo xam ne aussi ay at def nañ bi depuis leur convocation mhm. comme quoi waruñu fa indi avec des spots publicitaires mhm. par exemple calculatrice mhm. mais bu ñëwoon le surveillant day wax sac yëpp nañ ko bàyyi ci nañ ko bàyyi à l' entrée bon maintenant pourquoi mu dal kese Thiès région yi donc peut que loolu aussi euh, féliciter le directeur Euh, ne ko démarche participative rek moom mooy saafara mbir yi que mbir du saafaru à 100 pour cent ci benn waxtu waaye bu ñu kon ne di ci waxtaan xëy na même tolof tolof yu ndaw ci am parce que pour benn xale boobu rek du lu ndaw ci moom mhm. il faut ñu trouver ko solution Mohamed Moustapha un défi relevé ça veut dire que un bac sans fuite mhm. boo xam ne parce que daaw moom ci état bi moom loolu rek ba lekkoon euh, objet débat bien sûr waaw uh-huh. asalaamaaleykum Pape maa ngi nuyu donc euh, di fay donc Sowru Mm. donc euh, sama xarit Cheikh Mbow ak donc c'est euh, euh, quoi mm. donc di leen nuyu bu baax di la nuyu di la gërëm aussi mm-hmm. parce que dëgg la xaw nga ñoo jig parce que bu ñu defee émission rek à chaque fois suñ fi jógee ah président recevoir gaañ yi yëf yi sotti mm. kon bon ñu sant bu baax a baax ginnaaw loolu aussi di leen nuyu yéen ñëpp aussi turu ministre de l'éducation nationale ndax ministère laa fi toogal ah di wax ni di féliciter aussi le ministre euh, Mary Teuw Niane ak le directeur euh, de l'office du BAC. Mhm. parce que réussir nañ ko. te réussite bi li ci njëkk mooy damaa ni fay nañu avancé parce que xam nga jàng jàngalekat yi. <laughs> bu leen defee duñ ko wax ah. xam nga takkale leen tuuti. boobu mooy xam nga bu ñuy dem il faut ñu wax leen avance pour ñu mën a. dem euh, yegg dem mission. Mhm. ren coow amu ci. li ci tegu aussi amul fuite amul fraude kon ñu ngi koy sant bu baax li ci des nag si wax na dëgg ñu évaluer. affaire yi portable yooyu dañ ko évaluer parce que. c'est possible de donner une seconde chance à ci deuxième am na deuxième session. am na ku wax loolu ñu jox leen une seconde chance. je mm-hmm. man man c'est sama avis la. parce que tamit xam nga euh, gis nga xale boo xam dafa jëm sëyi ba tribunal. Mm-hmm. état investir parent bi investir. absolument donc c'est c'est beaucoup d'argent. te it état bi dafa bëgg xale yi réussir. Mm-hmm. donc su ñu leen mënee mayaat chance moo gën. man moom c'est personnel man daal gis naa ne war nañu may meilleure chance. Hmm. parce que jàpp naa ne aussi jàpp ma ni xale yi Sénégal gi yëpp indiwuñu portable. parce que da ngay wax ne non non tel lycée amoon na ku fi yor portable et cetera donc daal dañu la meilleure chance. Hmm. ñu def euh, session de remplacement. ah beneen yoon nag wax dëgg yàlla yar bi yar bi dal. Hmm. yar bi dal. absolument euh, kon ñu xool ni ñu may xale yooyu chance parce que peut-être juum nañ. mais jàpp nañ leen mais am na saison de rattrapage octobre la normalement. waaw session d' octobre boo xam ne xale yi war nañ ko def ñu may leen chance rek. parce que jàng sixième ba terminal pour benn erreur. c' est vrai beneen yoon nag ku ko def <laughs> yat bi dal la. ñu jox bu avertissement alors résultat yi gars yi ñu ne dafa catastrophique sawru d' accord nga ci loolu ba nga gisee statistiques yi am déet. waaw résultat yi moom euh, d' nañ ni ay résultats yu catastrophique. waxuma am waxuma rek bac d'abord. bac quoi. résultat wu bac c'est catastrophique waxuma la rek catastrophique mais résultat yi ñuy am pour moi c'est inacceptable au regard des ambitions ambitions yi nga xam ne dañ ko war a am pour l'école publique sénégalaise boo xoolee volume d'argent bu ñuy investir ci école bi. Mhm. gis aussi l'attention que l'école mobilise en termes de ressources financières comme ni ma ko waxee léegi ak même. les enseignants les parents d'élèves mmh. les élèves le Sénégal en tant que tel dans le secteur de l'éducation war nañ mën a dépasser résultat yi nga xam ne moom la ñu am ren parce que maa ngi koy wax ci taux bi lan la taux bi pour le baccalauréat c'est autour de 35 pour cent même si nit ñi wax nañ enregistré nañ un bond de 5 pour cent parce que en 2017 on était à 30 0,7 pour cent ren ñu ñëw 35 pour cent mais damay fàttali euh, xam nga boo jëlee benn réew comme France am na benn jamono moo xam ne ñoom ñu ngi amoon taux de réussite de 85 pour cent et pourtant n'empêche français yi dañ génn manifester ne échec ku pour cent c'est trop pour seen système. Mhm. donc ñun bu ñu nekkee un pays en développement maanaam dëkk boo xam ne dañuy soxla carrément de de de ay nit ñu jàng ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo war a suuxat koom-koom bi. bu dee suñu njàng résultat baccalauréat ñu ngi ciy toll ba léegi 35 pour cent je crois que il y a nécessité que ñu toog xoolaat situation bi parce que situation bi nag xool ko très souvent pour une analyse très simpliste des choses mun nga wax ni woyooyu grève bi la am na benn élément boo xam ne dafa démentir loolu parce que 2017 xam nga grève wuñu année stable la et pourtant 2018 de janvier à avril dañoo grève et pourtant résultat yi ren ñu tane yu daaw tane rek laa wax waxuma baax na mais moo tane kon saa veut dire que dans le diagnostic dans l'analyse am na ay paramètres yu bëri yoo xam ne il faudrait que ñu interroger leen pour mun a xam. la moo nekk mais par exemple le système. grève moom du ci il faut mu bokk ci. xam nga grève bi ci la. Mhm. grève bi ci la je crois que comme signé nañ protocole d'accord le 30 avril je crois que. un gouvernement patriote responsable dina mën a veiller à ce que engagement yooyu ñu jël le 30 avril cette fois-ci que ñu mën leen respecter bu ñu ko respecter rek dinañ mën a mettre l'école dans une parabole de sécurité et de stabilité te stabilité boobu nag bu amee ba ñëpp dal je crois que dinañ mën a engager ensemble une réflexion boo xam ne dina permettre ñu diagnostiquer mais wax naa c'est vrai grève yi mais wax na aussi le système d'évaluation Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la façon d'évaluer les enfants Est-ce que tolloowuñu foo xam ne nos enseignements le contenu de nos enseignements par rapport à l'environnement socio-économique voire même technologique est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interroger tous ces paramètres-là ñu ñu ñu xoolaat en tout cas man dama gëm ni c'est un diagnostic très sérieux très responsable mais serein moom moo ñu mën a permettre ñu def une analyse globale xool naka la ñuy réorienter orientation bi nga xam ne depuis 1960 dañ ko jël ba léegi e résultat bi rek mooy à chaque fois c'est la réussite qui est l'exception et l'échec la règle. je crois que loolu mënul continuer. waaw ay ca résultat yi ban jàngat nga ci def. waaw jàngat bi ma def de mooy comme bi ma daan def rek. parce que les mêmes causes ñoo produire les mêmes effets dara soppeeku fii defuñu fi lu tax ñu mën a am lu gën lii nu am. maanaam parce que résultat depuis plus de de deux décennies ñu ngi am ay résultats yoo xam lu ñuy gën a dem muy wàcc di dernières années yi la gën a fës. donc bu ñu demee ba ren ñu naan 30 pour cent lañ amoon parce que 2012 ba 2017 damay rappeler ni tendance baissière moo amoon 2012 ba 2017 ci 2018 bi ci la am. hausse bu légère parce que man dama jàpp ni 4 5 pour cent dafa faible. parce que comme ni ma ko camarade Sowru waxee soo jëlee réew yu mel ni France parce Sénégal dañuy bëgg jël exemple ci France te damay wax sax man souvent ne système éducatif bi ñu yor ñun Sénégal système éducatifu France la bu ñuy jàngalee Sénégal dëxëñ ko ci valeuru euh, nasaraan muy jëm ci nu muy saafara ak intérêt France. te teewul sénégalais yi ñoom ñoo koy financé ci seen poste noonu lay tënkee suñu système éducatif maanaam un système éducatif français enseigné au Sénégal bâti sur les valeurs occidentales pour servir les intérêts de la France et pourtant financé par le par les Sénégalais donc li ngay jàngat foofu mooy mënuñoo am lu lu lu gën li ñuy am nii parce que réew mënta développer te xale yi jànguñ ci seen kàllaama te ay réforme yu wóor am yoo xam war nañ koo doxal ñu jàpp ñoom ni buñ ne leen nañ dugal kàllaama yi nañu jàngale wolof nañ jàngale séeréer ñun waxuñu loolu dañuy def comme réew yi nga xam dañuy def ay réforme yoo xam pour mu bëggee am baccalauréat bu am résultat baax wala BFEM bu am résultat yu baax xale yi dañuy dal daara ci seen ci seen làkk yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu miin moom la ñu nàmp réew yu bëri def nañ ko parce que lu ñuy wax du lu ñuy du ay chinois nous ne sommes pas dans des chinoiseries mën nañ jël un exemple parce que su ma jël exemple man du ma jël exemple Europe parce que dañ naan tolloowuñ PIB tolloowuñ niveau de développement mais si on prend l' exemple d'un pays comme le Rwanda bi nga xam ne mu ngi dem mais dañu jël seen i responsabilité déjà en 1979 ñu def seeni i jël le euh, la langue nationale euh, la le Ken yi Rwanda jël ko teg ko pour xale yi di ci jàng ci école élémentaire bi ba nga xam ne bu ñu ñëwee dañ leen di namputal ci li ñu moom parce que kii bu nee cercle kenn wërngal ci wolof benn la donc lang bi wut a nekk blocage te au Sénégal lang bi blocage la donc réforme profonde leen leen laaj ñu jàpp ñoom ne naan jàngale leen nañ introduire les langues nationales. mais bu ñu doon fii daam bu ñu doon fii lu ñuy jàngale. wolof zone bu nekk dafa am une langue dominante. waaw mais c'est que ñun. codifié may ma rek ñëw ñun li ñuy wax ni lu leer nañ la parce que lu ñu bind la te dinañ ko leeral ci kanam tuuti parce que def nañ ci ay gëstu. d'accord mais non mais dañuy wax ni zone bu nekk di nga dinaa la bàyyi nga leeral dama ne tey jii bu ñu nekkoon na dañoo war a jàngale ci école bi. Mhm. ban làkk la ñuy jël di ko jàngalee ci bi ci sunu làkk. réew yi nga xam ne dañu nekk des réew yoo xam ne dañu bëri ay langues comme ay Nigéria. ak hmm. yeneen pays mais dañuy am ay expérience mel noonu Sénégal amuñu mille langues zone bu nekk dafa am langue bu dominée la langue maternelle ce n'est pas la langue bi sa papa ak sa yaay di làkk mais zone ba nga nekk langue ba fa dominée bi nga xam xale yi moom la ñuy foowee ci mbedd. kon wolof lay doon. non waxuma loolu dafa am zone yoo xam wolof dominé soo demee tey usuli non même rek non non c'est important. laa la may daal dañuy waxtaan rek. dama bëgg a wax xam nga li ma la may. Mm. xëccoowuñ mm-hmm. dañuy waxtaan. Mm-hmm. pour téléspectateurs yi ñuy seetaan tamit mën a comprendre. Mm-hmm. dama bëgg na xam nga jàngale bi dafa war a mën a ñu universalité ko ci benn dëkk. mais ba par exemple boo waxee ne boo demoon Fouta alpulaar lañ koy waxee. nga dem euh, Fatick ñu ne. séeréer lañuy ñuy laaj te séeréer dafa bëri sax. ay ay ay variantes. nga ñëw. loolu laa bëgg a xam ne nan la ñuy régler problème boobu la langue n'est qu'un n'est qu'un xam-xam ba ñuy jàngale Fuuta ci pulaar contenu ya ci pulaar mu contenu ya ñuy jàngale ci joolaa ñoo yem contenu yi ñuy jàngale ci séeréer ñoo yem cest à le contenu est le même a pas de problème sur le plan sur le plan des curricula mais le problème c'est seulement sur le moyen qu'on utilise pour ko xam-xam bi jàll donc bu ñu d'accordee ne langue moyen la rek pour nga am xam-xam mais du moom mooy mooy mooy xam-xam bi bu ñu déggoo ci loolu zone bu nekk langue ba fa dominé moom la xale ya di dale dans l'élémentaire bu ko defee dañuy jàng mathématique ci ci seen langue jàng histoire géo ci seen langue et puis comme ni ñu koy wax aussi mu bañ a nekk un système éducatif boo xam ne France mënu koy imposer bu ko defee dañ fay jàngale li nga xam ne ci bi dañ fay jàng bu ko defee bu ñu defoon loolu mhm. bu ñu ñëwee ci résultat yi dinañ am résultat yu gën lii ñu am parce que niveau bi day yokk parce que benn réew ci àdduna bi amagul. très bien am un système ñu may ñu may Cheikh mu rotal ci mu rotal kaddu ci euh, Cheikh résultat yi. waaw résultat yi je crois que. ni ñu ko waxee mooy li am. mooy vraiment c'est inquiétant parce que boo nee ren am nañ cinq point 9 pour cent de réussite au baccalauréat évidemment que da xalaat plus de pour cent mooy juróom benn xale ci fukk yoo xam ne jàlluñ. Hmm. lan la ñu dañuy dafa dire est xale yooyu dan la ñu doon seen suba déperdition scolaire bu grave et puis mën na sax jur lu bëri loo xam ne duñ gën ci biir réew mi parce que ku nekkul si dara ah mën ngaa dugg ci lu ne uh-huh. kon loolu dafay nekk mbir mu am solo li ñu gën a tiital ci résultat yi ñun d'accord ñu ñuy comparé wu seulement ci année dernière parce que bu nekkee da nga nekk réew mu ambitieux da ngay comparé wu ci ay normes ak standard de performance te ñëpp xam nañu en pédagogie dañ ne bu nekkee ni njàngale bi jaar ni mu waree boo jëlee ñett juróom-ñett xale. Uh-huh. ci fukk war nañoo mokkal euh, quatre-vingt pour cent si li ñu jàng c'est-à-dire quatre-vingt pour cent mooy résultat minimal bi nga xam ni programme euh, un système ambitieux war na ko am. boo ko amul rek xale yi échoué ñu de soixante cinq pour cent yooyu du ñoom ñoo échoué de système bi moo échoué boo amul résultat boobu rek système bi moo échoué et maintenant li ñu siy yéem mooy loolu kooku la ñu war a comparé wu waruñoo comparé wu seulement ci année dernière maintenant évidemment année dernière sens am mooy ñu xool suñu rythme de progression tendance bi.

même bu ñu jàppee ne Sénégal mënu koo laaj tey maintenant et tout de suite waaye war nañ mën di sentir ne chaque année. am na bon am na bon. beneen bon de 5 points de 10 points nga am yaakaar nga ne donc en termes de planification de la qualité et de la réussite pour tous fii ak peut-être ans on va atteindre tel aspect mais bu fekkee chaque fois day wàcc wala mu nekk dent de scie mënuloo dépasser pour cent sur période-là évidemment qu'on toutes ku nekk am nga ci part de responsabilité jàngalekat bi la une part de responsabilité une grève rek. waaw euh, yi am nañ une part de responsabilité par rapport à ça. Ah, demal l'encadrement l'encadrement dans le suivi de truc. Euh, euh, autorités yi kilifa yi am nañ la grande part de responsabilité parce que ñoom lañ dox torche bi pour ñu am une planification qui nous permette de voir en tout cas que ñu suñu xaalis parce que investissement bi ñu def ci éducation bëggoon nañ évidemment moo am moo moo am solo. Hmm. boo seetee Sénégal. ñëpp d'accord dañ ci phénomène boobu ñu wax encyclopédisme li ngay jàng Sénégal amul benn xale bu koy jàng ci réew on fait un bourrage xale yi li booy fàttaliku ko man ak yow yëpp li ñu def terminal à du mois de mai dañ doon dem collège épreuve France on capable de résoudre mm-hmm. donc ça que li ñuy buuree li ñuy jàng xale yi dafa bëri waroon nañu xoolaat programme bi ba du nekk encyclopédisme loolu pour nous c'est un élément essentiel le système d'évaluation ça aurait revenu dessus c'est important nan la leen di nattee est-ce que dañuy nekk aussi système boo xam ne da ngay répéter rek réciter jour boobu boo boo boo gàngatee am jafe-jafe ci benn mot sax. doo mën a répondre ni mu waree. Mm-hmm. le système d'orientation am na xale boo xam ne xay ne échoué na parce que ñoo ngi ko orienté série S alors que série L mooy série wala am na xale boo xam ne échoué na parce que warul def enseignement général. Mm-hmm. moom dafa waroon def formation professionnelle koo xam ni ayul jëlal ñi nga xam ne ñoo leen tuddee échec ñoom ñooy réparer oto yow. ñooy réparé ñooy ñooy ñëwal ñooy réparé portable yi fii mais bu bu professeur bi ko wax xamuloo dara professeur bi ko ne xamuloo dara ba jox ko bon bu portable am kii caaroy lay dem xale bi mu waxoon na nga échoué kooku moo ko di donc nan la ñu bu ñu génnee ci carcan scolaire bi da nga leen di gis ñu wane yeneen compétence en matière de sport en matière de culture en matière d' artisanat ou d' entrepreneuriat demal Sandaga ñu fa nekk on dit que ñoom dañu donc nan la leen ak nan la leen orienté pour ñu am na solo l' environnement des enseignements présents boo amul mooy grève évidemment que tu feras pas de résultat bu fekkee ni l' environnement des apprentissages amul sécurité ba xale buy dem xel mi day yàkkamte sax di dem école bi nekk xale moi je me rappelle sa école nga xam ne yow da ngay yàkkam ci yeewu ba ci l' école de l' environnement des apprentissages pour nous c' est une question aussi essentielle donc euh, sécurité euh, cantinisation tous ces aspects là il faudrait effectivement les prendre en donc aujourd'hui jot na heureusement nga def sa émission bi waxtu bi moo tax ma ne émission bi bokk na si ba gën a neex jot na ñu jàpp ni vacances ñoom sawru ñun euh, Diagne ministre bi amuñu droit jël vacances c'est une période boo xam ne war nañ cee toog ñu def une réflexion profonde sur la cause des échecs. très bien. Mm-hmm. Mohamed Moustapha. waaw jërëjëf euh, alors résultat yi noo leen ko jàngatee ak tamit li fi jib ci euh, la nécessité de revoir un peu le système. fait dinañ ci ñëw. Mm-hmm. d' abord di rappeler aussi nii du bac rek la ñu organisé. Mm-hmm. organisé nañu BFM. organisé en 36 te direction des examens et concours moo koy organisé te foofu amul fuite amul fraude. absolument loolu également ñu fa félicité donc euh, direction boobu suñu xaral Makhtar Ndiaye jiite ko. BFM mm-hmm. bi on est passé de 45 cent maanaam téeméeri xale yoo jël. def BFM. Mm-hmm. ñeent fukki ak juróom ak juróom yi loolu tuuti jàll nañu ren téeméeri xale yoo jël daanaka ñeent fukki yi ak ñett jàll nañu. kon dafa baissé de deux yokk na yokk na. ah yokk dafa yokk on est de quarante cinq à cinquante deux pour cent. ah cinq juróom fukk ñett. loolu am na solo tey tey lañ jot def nañu tey agrégé nañu tey résultats yi donc. Euh, au niveau du BFM IA par IA donc yor nañu ko fii. donc on est à cinquante deux virgule onze pour cent au niveau du BFM. Mhm. donc pour dire que foofu am na bon. vraiment qualitatif bac bi effectivement on est passé de trente et pour cent daaw xale boo jël euh, téeméer yoo jël. fanweer yi daanaka ak ñaar ndax 31 mille soxna ñoo am ren téeméer boo jël fanweer yi daanaka ak juróom-benn jàll na malgré nag crise bi euh, ak yooyu ak euh, grève bi yëpp donc ça veut dire que suñu njàng mi quand am na lu ci dëgër ba tey parce que jàng ñette ku seq élève bi jàngalekat bi ak parent bi. Mm-hmm. ndax bu demee école day jàngi. mais bu nekkee ci kër gi lay jàng. bu koy encadré. bu nekkee ci kër gi lay jàng loolu lu am solo la dañ ñëwaat tout à tout à l'heure ci cause yi mais euh, pour tontu tuuti euh, sunu xarit ñoom euh, soo wax affaire évaluation Sénégal inscrit na ci PISA PISA mooy programme international de suivi donc des évaluations euh, programme boobu boo ci inscrire. ñëpp dañuy xool li ngay def li ngay évaluer say say élèves donc dañ ko dañ ko def pour transparence lu mette la nag parce que du ñëpp ñoo nangoo dem dugg ci loolu mais def nañ ko pour transparence pour aussi xoolaat suñu en même temps am na ñuy wax tamit SNES mooy système euh, donc euh, national de donc d'évaluation des rendements scolaires boobu aussi teg nañ ko pour chaque année ñu xool évaluation yi maanaam ni ñuy euh, ni ñuy nattee xale yi nan lañ ci war a dindi ak lan lan lañ war a yokk d' ailleurs pour pour Cheikh am na programme bu ñuy wax parc programme boobu mu ngi xool euh, xam nga buñ ñu joxe da ngay jàng histogéo. waaye mhm. bu jëlee jëlee histogéo ñu jox la benn chapitre boo jàngul boobu rek daanu nga fekk jàng yeneen ñaari chapitre wala ñetti chapitre léegi ñu ni est-ce que programme yi bu ñu jël xale bi ko jox 75 pour cent maanaam bu ñu bu programme bi diggante au moins di nga traversé ñetti chapitre pour nga ëpp chance donc loolu également euh, chantier la boo xam ne pareegul mais ñi ngi ci. ñeneen koy envisager quoi. non ñu ngi ci c'est ngi ci alors euh, Dame aussi wax na fa affaire France Dame Pape Alé fu mu jàngee ci école Sénégal yi la jànge da ko nekk dafa tax mu nekk tubaab man nag yow ak ñi ñëpp fu ñu jàngee da war a lire la lette de politique sectorielle bu éducation boo ko liiree ci ngay xam. ñun ban Sénégal dañu bëgg a tabax depuis longtemps ñun dañoo bëgg a tabax sénégalais boo xamante ni bii dafay ancré ay ay am mais day ubbeeku au sous-fécondant kooku bind nañ ko mu leer nañ Sénégal bi ñu bëgg a tabax du ab tubaab du du suisse du chinois ñu ñii ñëpp ci école yañ jàngee te kenn nekku ci tubaab waaw euh, bi ci tegu wax nga affaire langue ma xamal ne Sénégal am na. Euh, ñaar fukki langue ak ñaar ñaar fukki làkk ak ñaar juróom benn lañ ci codifié te président de la république waxoon na ci euh, mesures yu mu jël gannaaw assises nationale ni ci onze mesures yi euh, nañu jàppale nañu dugal gën a dugal njàngum euh, làkkum réew mi ci wàllu njàng commencé nañ ko yaa li ma la wax nii. muy Atlas di Émile yi ma ay ONG lañu di euh, di arrêt di LPT am na ay ay ay ay ay ay jëw yu bari am na ay classes yoo xamante ne bi xale bi dafay tàmbalee pulaar effectivement en fonction de la zone ba mu tàmbalee euh, wolof ou bien suñu mbokku séeréer bi ñoom ñoom ñoom am na loolu déjà commencé nañ ko mais il faut il faut être réaliste en 1996 97 bi ñu ko bëggee njëkk a def bi ñu waxee dañoo war a refondre éducation bi ça coûté 593 milliards. pour que ñu jëlee ñu jàngee làkku réew mi 94 laa wax 96 xam nga loolu yàgg na donc c' est des moyens très conséquents parce que soo ko bëggee def tey tey boo ko bëggoon def tey ça veut dire que da ngay former waat jàngalekat yëpp da ngay changer livre yëpp livre yi mathématique yëpp dañ koy bind ci ay ay kii a polaar et cetera du nekk loo xamante ni bii dafa dafa dafa dafa dafa simple moo tax nekk fii di France suñu ndono la yaa ko sàkku maa ko sàkku suñu ndono la man dem naa Rwanda contrairement à ce daaw leen maa fa. anglais ak français dugg naa ci classe yi. loolu la gis ay anglais français c'est vrai que. Hmm. ñu dugal seen làkk national mais seen làkk officiel léegi anglais la. nga Rwanda. du Swahili. dugg naa ci classe yi visité nañ ko vraiment loolu également euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu leeralal la ko pour orientation yi. Euh, effectivement euh, dëgg la président nee na nañu orienté suñu jàng ci wàllu science euh, technologie entrepreneur yu demee noonu ak mathématique bëgg nañu 30 euh, pour cent déjà chaque anne ñu orienté leen ci ci loolu commencé nañ ko physique chimie bu njëkk mmh. moo tax ministre de l'éducation nationale jël décision physique chimie bu njëkk boo boo boo defee sixième def cinquième boo demee quatrième da ngay tànn ñi defi science physique ñi mmh. defi ay langues mais léegi classe quatrième yëpp dañuy def science physique tout dire commencé nañu matérialiser loolu nga xamante ne bii moom la chef de l'État bëgg ci ci bi pour dire que maintenant lii warul bett kenn résultat yi mënuñoo neex mais du résultat 2018 ay résultat ay at ci ginnaaw la parce que may rappeler ni euh, entrée en sixième bu fekk man ci classe bi ma fekk ay 2008 ak ah, bu ñu defee admission universelle maanaam amatul woon doublé. xale yëpp dañuy jógee CM2 dem sixième ñu jàll waaw amoon naa ay classe sixième mais xale mënu noon bind seen tur mënu bind seen tur xale yooyu ñu si bëri tey ñuy def bac xëy na ñuy def def loolu aussi mesure bu ñu jëloon dafay am conséquence mhm. si nga Ablaye Wade juste avant muy dem entre janvier et mars 2012 jël nañu ñaari junni vacataire ñaari junni vacataire te ñooñu ñu ngi ci système bi traité bi ñu ko vérifié. Mhm. ab ñoo xamante ne bi sax amuñu woon diplôme yi. alors qu'on avance un peu euh, Saourou. Mhm. Euh, causes yi xam naa loolu moom dafay laaj réflexion yu profonde ci affaire li nga xam ne moo di résultat yi mënuñu ko régler autour d'un truc mais tey jii ñu ñëw ci wàllu engagement yi nga xam ne jëlalu nañ ko. Mhm. parce que loolu tamit il faut que ñu régler ko. pour mën a àndandoo def une démarche inclusive. régler problème mu système fan ngeen ci toll ci timing bi nga xam ne moom ngeen amoon. ak état bi par rapport ak engagement yu mu jëloon seen plateforme revendicative bi. merci Pape li ci question bu pertinente boobu parce que gis nga liy xew année deux mille dix huit deux mille dix neuf instant yi la ñu mën a gis les signaux pour fànq liñ ci war a parce que comme ni ma ko waxee signé nañ protocole d' accord le 30 avril 2018 yaakaar ni protocole boobu liñ ci wax yëpp état wu Sénégal dina ko jëfe loolu de dañ dañ ko soxla euh, boo jëlee tey ci processus bi mën naa wax ni guichet unique yu ñu waxoon avec la fonction publique def na ñaari guichet unique yi muy mois de mai ak mois de join guichet unique yooyu mm-hmm. dafa war a permettre à ce que acte d'avancement d'intégration ou de validation nga xam ne jàngalekat yi wax dëgg seeni carrière la état bi def ci war a def jéego def nañ guichet unique yi mais c'est important aussi ñu wax ko gis nga on aura fait un guichet unique tant que demuñu dans la dématérialisation totale nga xam ne lépp luy ay paparas ay tout ça dañ koy pare utiliser la technique et la technologie nga xam ni principal bi nekk bi war na mën a am envoyer directement à la fonction publique le dossier d'un collègue bu war a avancer wala bu bu ñu war a intégrer gis nga tant que yegguñu foofu utiliser te technique la problème yi du jeex et d'ailleurs je profite de l'occasion pour le dire nga instant yi jàngalekat yi ndeysaan dañ waroon nekk vacances noppalu mais ñoom ñëpp tey boo xoolee régions yi ñu ngi fàq régions yi di ñëw fonction publique pour encore toppaat seen dossier yooyu pas plus que ce matin rek mun naa ko wax woo nañ mën ne ma plus de 60 agents ñu euh, enseignants ñu ngi fii taxaw buntu fonction publique bëgg a bëgg a renseigner ma ne situation yooyu il faut ñu éviter ko xool carrière u jàngalekat yi lenteur administrative yooyu naka lañ koy régler de façon définitive parce que la technique et la technologie le permet beneen élément bi nga xam ne ci accords yi la mooy système de rémunération bi mën naa wax le 30 juillet passé premier ministre tase na ak ñun pour lancer officiellement mais ma fàttali engagement chef de l'État def ni woon day jël le document issu de l'étude sur le système de rémunération par le cabinet MGP Afrique boole ko nag ak moom chef de l'État étude bi nga xam ne moom moo ko santoon euh, euh, inspection générale de l'État bu jëlee na ñaari document yooyu mettre ko à la disposition de l'équipe maanaam parti syndical parti gouvernemental comme ça ñu engager les travaux sur le nouveau système de rémunération comme ça avant le mois d'octobre ñu mën a pare travaux yooyu ba jéebal ko suñuy proposition am na aussi passerelle professionnelle yi mais passerelle professionnel yi li ci xew lu lu doy waar la. la moo ci xew. li ci xew mooy xam nga passerelle professionnelle yi damay rappeler dañ ko signé depuis 2012. Mm. ñoom ñu ñëw ñu réchauffé ko 2014 daal di jël engagement nag ci protocole bi weesu ne dañ koy matérialiser mais ci matérialisation boobu boo nee concours bi lancé nañ ko mais concours professionnel yépp yu ñu xam boo koy lancé da ngay wax kay critères yi yépp wax les quotas mais depuis ñu topp et d'ailleurs lu ñu waxoon dafa leer premier ministre def ni mois de mai dinañ leen communiquer les quotas mois d'octobre concours bi ñu lancé ko déjà au mois de mai pendant que ñu terminer juste la signature du protocole ci la ñu dégg ni lancé nañ déjà le concours des passerelles man ci sama bopp mu woo le directeur le, le doyen de la FASTEF boobu maa ngi dans la région de Fatick en tournée ma ne ko mais man dañ ma jox ay information yoo xam ne man xaw ma nu mu demee concours passerelle professionnel yi da ngeen ko lancé bu nee moo waaw ma ne ko waaw mais quota kañ ngeen ko am ba koy lancé mu ne moo amoon nañ quota yi mois d' avril ma ne ko kon au moment où on rencontrait le gouvernement du Sénégal boo ñu ne quota dinañ ko joxe au mois de mai et à partir du mois de d' octobre ñu def concours kon en ce moment yéen jotoon ngeen quota yi mënuma tontu ci loolu ma ñibbi si gis quota yooyu ñu ngi ko topp ministre de l' éducation ba rencontre mensuelle ci le directeur des ressources humaines communiquer les quotas ne ñu 67 agent ci quota ci pour toutes les disciplines et pour tous les niveaux 67 agents la ñuy jël fekk ni ci li wóor ñi inscrire fastes romb nay ay junni junni di dem ba pare chaque agent bu inscrire dafay verser 10 000 francs boo xoolee loolu c'est c'est déjà des millions yoo xam ne FASTEF enregistré na ko ci ba pare nag ñu ne ñu pour toute la formation et pour tous les agents c'est 67 agents la ñuy jël ñu ne leen loolu de mënuñu ko nangu non seulement mënuñu ko nangu mais comme nji euh, njiitu gouvernement bi moo ni woon mooy assurer monitoringu protocole bi man ci sama bopp jël naa sama téléphone woo ko premier ministre bi mu koy woo instant boobu mu ngi Ankara représenté le chef de l'État mu ne ma moom mu ngi Ankara mais bu ñibbisee dina ci dox ay jéego dina ci waxtaan ak éducation nationale ak enseignement supérieur bi nga xam ne FASTEF foofu la dépendre rencontre bii ñu mujjee def ñu ngi koy fàttali l'engagement du monitoring des accords ne ko chaque trois mois dañ ni woon chaque trois mois dinañ toog càmbar protocole bi xool liñ ci def ak liñ ci defagul donte woo nga ñu pour lancer officiellement question système de rémunération bi te mu amul ñu solo trop mais ñu ngi lay xaar tamitam ñu dem dans une rencontre boo xam ne dinañ mën a xool li nga xam ne. Mhm. jéego la ngeen def ko ñu won leen li ci li ci li li ci normalul ak li nga xam ne dañ ko war a corriger gëm naa sama c'est ma ferme conviction li nga xam ne dañ ko joxe quota ci passerelle professionnelle bi ce n'est pas ça. du loolu mooy li enseignants yi doon laaj du loolu mooy li organisation syndicale yi demandé woon du loolu mooy lu ñu xaatim ak gouvernement aussi. alors Dame euh, ci protocole beeg accord yi. jërëjëf Pape Alé li nga laaj laaj bu am solo la parce que yaakaar naa ne tey sax mooy solos li nga digge woon maanaam ñu dellusiwaat càmbar tool li état bi digge woon fu ci tool mais bala ma ci ñëw rek bëgg naa tamit def benn précision rek parce que quand même sànq mon ami Dani 593 euh, milliards la ñu wax ni coût bi loolu la war a coûter pour ñu def changement de paradigme. Ah, en 86. waaw léegi mën na dem sax 1000 milliards mais ku mën a tabax teeru 1000 milliards. parce que teeru 1000 milliards pour enrichir une société française gënta am importance ñu gis ni fii la ñu war a jëm mooy suñu intérêt réew te réew yi émergent yëpp def nañ loolu ñuy denk nekk di tendeefal ñun loolu lañ gëm donc foofu bokkuñu gis-gis benn bi mooy je confirme. qu'au Rwanda même s'ils ont changé récemment la langue française bi leen amalul benn def fa anglais ki parce que l'anglais moo gën a stratégique moo tax ñu dindi français def anglais comme seen langue officielle mais je je persiste et je signe pour les trois ordres d'enseignement pour ce qui est de l'élémentaire le kenn yi Rwanda ci la xale yi di dal loolu mooy dëgg et je mets à défi ceux qui nous suivent ils peuvent faire les recherches nécessaires maintenant pour revenir euh, euh, ci li nga wax pour ne pas répéter li sœur wax parce que comme accords yi dafa bari te émission bi dafa gàtt mënuñu hmm. wax ci accords yépp yi nga xam respecté nañ ko wala fan lañ ci toll voilà fi ñu ci toll damay ñëw man ci yim waxul parce que yim wax d'accord nga partagé naa waaw léegi damay ñëw ci yi nga xam ni peut-être même ma ci ñëwaat yi mu wax rapidement damay ñëw ci yi mu waxul peut-être temps may ko d'abord avant may ñëw ci loolu damay ñëw rek ci passerelle yi rapidement parce que bëgguma woon répété wu mais passerelle dafa am lu ci ne les passerelles wax ñi ñuy seetaan comme mooy jàngalekat bi nekk ci benn niveau ñu jële ko bii niveau mu war a def ay avancées ci biir carrière am sans mu delluwaat université wuti ay diplôme comme ni koy defalee tous les corps de métier ci enseignement muy élémentaire muy supérieur am nañ ay passerelles. ñu gisoon ne moyen secondaire rek moo amul passerelle soo ci génnee le corps des inspecteurs ak yeneen yi mais les enseignants créés en mai amuñu woon passerelle alors que boo demee ci élémentaire dañ ko am ci instituteurs adjoints yi mën a devenir des instituteurs et cetera donc loolu mooy passerelle mais erreur ba fa njëkk am mooy et c'est ça que moi je regrette mooy d'abord l'accord pose problème te lool peut-être naa ci interpeller sama camarade Sow parce que passerelle professionnelle du concours c'est un examen professionnel d'abord foofu la njëkk a daanu du concours c'est un examen professionnel ça veut dire quoi d'ailleurs c'est pourquoi état bi engouffré wu ci quota yi parce que sax man gis naa benn PV buy wax ni le gouvernement ñoom ak sama gars yi le dina fixer les quotas mais soo xasee wax quota yaa ngi ci concours alors que les passerelles professionnelles mais enseignants yaa ngi may seetaan mais du concours concours ñoom jàngalekat yi defuñu concours pour nekk jàngalekat dañoo def concours nekk jàngalekat ba pare léegi nag di jàngale am nombre d'années d'expérience ba noppi am seen licence ak seen i te kenn valoriser wu ko nekk PCM bi la ñuy bañ wala PM à vie ñu ni après un certain nombre d'années war nañ la mun a defal les acquis yi nga am parce que ñun revendication boobu bañ njëkk a en 2006 2007 je parle sous le contrôle de mon ami Mbaye Falley boobu man j'étais le chargé des revendications du CUSEMS CUSEMS avant ñuy tasaaroo mais man li ma jàpp mooy foofu njuum tegam nga commencé foofu du concours examen professionnel la donc gouvernement bi foofu bu fekkente ni daf leen a parce que même sooru concours laa dégg ko donc foofu la gouvernement bi rouler nos amis dans la farine donc wërta am quota parce que du concours examen professionnel ça veut quoi dañuy fixer les standards wax ni ku am lii ciy poñ boo jàngalee nombre d'année bii boo defee concours bi soo matalee standard yi da ngay jóge PCM nekk PM wala da ngay jóge PM nekk PS loolu bu ñu ko defoon dañuy def rek concours bi comme ni ñu ko defee à l'élémentaire bu fekkee 1000 jàngalekat ñoo war a jóge nekk PCM nekk PM mu nekk 1000 bu dee def nañ concours bi ñu am niveau matuñu 500 matuñu 500 mais ministre de l'éducation dem taxaw euh, en rapport avec la FASTEF ñu fixé seen 67 personnes à l'échelle nationale et puis mu am njombe pap njombe bi ca am mooy dañoo bàyyi ba jàngalekat yi inscrire joxe seen 10 mille francs parce que frais d'inscription bi 10 000 francs la ñu bàyyi ba di des des des des centaines di même des milliers d'enseignants ku ne joxe 10 000 muy millions yu bari ñuy doog a génne 67 yi jàngalekat yu bari defi wuñ concours bi. aujourd'hui sax beaucoup de jàngalekat nee naa leen nañu organiser wu pour ñu delloo leen seen xaalis parce que y a de l'arnaque dans cette affaire beneen bi nag ma ñëw ci beneen point mooy yi ñu respecté wu toujours les DMC. DMC yi ci euh, protocole d'accord boobu dañ ni état bi dina ko fay en trois tranches mooy mooy protocole d'accord bi nga yoroon bi ñu fi mujjee. Hmm. état bi ne trois tranches la fin mars fin juin ak fin septembre dina dugal euh, euh, bu ci nekk environ 4 milliards. La première tranche en mars, qui est de 3 milliards 891 millions 500 mille loolu dugg na. dugg na waaw loolu dugg na. mais la deuxième tranche. nga xam ne juin la waroon a dugg. duggul ba suñu joon yàlla tey. te ñoo ngi au mois d'août. te septembre moo war a nekk la troisième tranche. comme da nga bëgg sénégalais xam ndax li état bi waxoon ak jàngalekat yi wàccoo na ak loola kon ci boobu poñ état bi wàccoowul ak ak lëm diggé woon maintenant may leeral foofu ne am na beneen problème bu fa nekk en 2016 dans la loi de finances initiale dañ ci defoon 16 milliards en 2017 ñu def fa 18 milliards yooyu nga xam ne dañ ko référencé woon en 2016 bi ñu ko dugalee te budget bi exécuté wuñ ko ñu ñu ñu ñu ñu euh, réordonnancé ko en 2017 exécuté wuñ ko aussi alors que dañoo dem assemblée nationale voté budget Sénégal wax ne ci DMC yi moom pour mu leeral sénégalais yi mooy DMC mooy juróomi millions yi ñuy lebal ja euh, nguur gi te jàngalekat yi comme dañ cee bokk. pour ñu am kër dimbali leen pour ñu am kër sans intérêt. mais comme accord la bu état signé ak ñoom parce que dañ bu jàngalekat yi amee kër comme ni ko UNESCO waxee dañuy gën a dal pour seen liggéey mën a gën a dox léegi nag ñoom 2016 16 euh, euh, milliards yi duggul bi ñu duggee 2017 également. les 18 milliards dugub ba 2018 bii environ les 12 milliards yi ñu wax ci lañ dugalagun donc en trois ans ci ñetti at 2016 2017 2018 sur les prêts DMC gouvernement du Sénégal dugalu ci lu dul 3 milliards million millions 500 mille mu concerne 850 enseignants yu am seen convention 2016. donc foofu état bi respecté wu li mu waroon def. pour dugg ci beneen rek rapidement mooy damay daanele foofu damay daanele foofu damay daanele foofu rappel pas la parole à personne rapidement waaw rapidement pour jàpp ni rappel état bi ni mu ko bëgg a fayee nii mm. rappel d'avancement rappel d'intégration et euh, rappel de validation su fekkee ni mu ko bëgg a fayee nii la ko bëgg a continuer kon jàngalekat yu ne yu bëri dinañ dem retraité duñ fayee ko seen rappel léegi nag ñu wax ne le rythme est lent ensuite le niveau de d'imposition est trop élevé parce que ñun biñ ko waxee nee nañu woon dañuy def benn atelier ba DGID wax ne da koy programmer programme wuñ ko parce que dama lay jox rek benn exemple rapidement fa lay terminer benn jàngalekat a ngi nii boo xam ne rappel am état bi mi ngi ko war a fay rappel du ma wax turam pour euh, garder le secret de euh, donc de son salaire état bi mi ngi ko ameel rappel 3 millions 947 mille 904 francs mhm. moom la ko ameel ci rappel boobu bi mu koy fay mu jëlal ko impôt yoo xam mi ngi toll ci neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent c'est-à-dire un million ci ci rappel boobu yoo xam dañ koo dagg ay impôt ba noppi teg ca moom mi ngi doon fay seize mille impôt par mois bulletin de ngi nii mi ngi doon fay seize mille francs impôt mois bi mu jotee rappel bi chaque mois léegi muy fay cinquante deux mille francs ba mois de décembre parce que nee nañ ko da jot rappel c'est-à-dire c'est de l'arnaque. très bien ñu ne nag niveau de surimposition boobu. suñu bëggee jàmm dañuy delloo jàngalekat seen xaalis. parce que état bi ràq ak mu neex tamit. même ñu may permettre ñu ne tamit ñu euh, réagir Cheikh. waaw ayca lii ñuy def ni monitoring bi est-ce que jotul tamit tous les acteurs ñu toogaat ci taabal bi nataat laata ñuy duggaat ci li nga xam ne parce que lu tax may am boobu. moo di octobre bu tàmbalee ci année électorale lañ jëm te ñëpp xam nañ ne syndicats yi année électorale dañ koo bëgg parce que année boo xam ne la bu ñu tegee pression ils pensent que les gens vont lâcher du <laughs> il a fallu que le président Macky Sall ñëw pour ñu sauver année boobu ah en est-ce que acteurs yi pour ñu toogaat ñu xool lan mu ñuul si soow mi ñu seppi ko teg ko fële tout à fait tout à fait moi je pense que si question boobu su ma su doon aborder si ñett poñ laa koy jàppee bu njëkk bi déjà mooy ñu def lien bi am entre li ngay laaj mooy suivi des accords ak euh, li nga njëkkoon laaj. Mhm. moom mooy qualité des apprentissages. parce que ñëpp xam nañ ni euh, lien boobu c'est établi bu fekkee nii système bi amul euh, amul dal évidemment que résultat yi du baax. Mhm. donc loolu il faut il faut ñu gis ko. ñu fàttali di baccalauréat kenn du ko amee terminal baccalauréat doo ko amee terminal c'est tout le cycle sanctionné donc boo seetloo même bu ñu def réaménagement calendrier scolaire on s'est on a constaté que li ñu gën a intéressé mooy classe d'examen yi mhm. donc alors que xale bi def bac dafay cumuler ay grève di cumuler ay ay de perdu bu ko dajale ba egg terminal évidemment que mënul def ay. mais ñun Sénégal kañ lañ mës a respecté quantum horaire yàgg la de. gëj na gëj na de ce point de vue il bu ñu amee jàngalekat bu ñu amee ministre de l' bu ñu amee président de la république dans le secteur de l' éducation rek si la ñu mën a jóg bàkkoo ci mooy résultat yi di baax xale yi di jàll. waaye bu fekkee nii ñu dul jàll ñoo ëpp di jàll évidemment que c' un échec et donc de ce point de vue il faudrait que ñu gis seen yàlla. deuxième élément pour ñun bi nga xam ne am na solo mooy li nga wax les éléments de contexte ñoo ngi jëm année électorale ñëpp xam nañ dañuy tekki année électorale. te dans ce Sénégal là xam nañ ni secteur yëpp du éducation kese santé yëpp mën na am bouillonnement mais d'autre part dana am fooy toll foo xam ni ñi nga xam ne ñoo war a toog waxtaan ak ñiy défendre jàngalekat sax dañu amatu seen jot ñoo ngi ci biir àll bi di def ci peut seen campagne électorale hmm. donc il est important que ñu fexe ba anticiper ci loolu ba année scolaire bii ñu jëm mu nekk année scolaire bu dal on le temps de le faire parce que mois d'août pour que ñu mën a évidemment anticiper sur la question ba nga xam ne duñu vivre impactu euh, ñàkk jotu kilifa yi impactu bouillonnement wu secteur yi ba euh, système éducatif bi dem toujours sur les éléments de contexte gis nga syndicat des inspecteurs de l'éducation ñoo ngi nekk en mouvement dafa mel ni faalewuñu leen dafa mel ni parce que ñun ils nous ont contacté dans ce sens là donc il faudrait évidemment que ces éléments là qu'on puisse les prendre en charge bu fekkee ni bëgg nañu am vingt année apaisée une année apaisée pour la réussite de tous parce que ñun li ñu yitteel rek mooy mm-hmm. qualité de l'éducation Euh, beneen élément bi nga xam ne fa laay peut-être daanale moom mooy sur la question du monitoring ñun fekkee nañ bi premier ministre dajaleeg nit ñi. Mhm. dajaleeg jàngalekat yi. je me rappelle jour daf ñu jox parole ñu joxee parole maanaam ah man dafa maa bett yaakaar naa sax duñ jël parole dañuy toog rek pour déglu bi ñu jëlee kàddu gi dañ na ko ci biir accord yi li ñu ci wax yëpp ñaar mooy yi ñu ci gën a yitteel bi njëkk mooy engagement bi ñu jël pour def le monitoring trimestriel sous le leadership du premier mhm. waxtaan boobu chaque 3 mois bu dee am gis nañ ni jamono bi mu amee grève jéego yi ci jot a yëpp. mooy jamono bi nga xam ne premier ministre jëloon na euh, la question en charge donc ñu ngi koy ñaax monsieur le premier ministre yaa ngi ko digoon que monitoring yooyu trimestriel xam nañu agenda yi serré na nga fexe ba mu mënti am parce que bu mënee am dana mën a tax euh, ñuy mën di gis le suivi des accords mm-hmm. beneen aspect bi nga xam ne yitteloon nañ si mooy motivation jàngalekat yi toujours en lien avec l'amélioration des performances motivation des ense de carrière nit ku ne mm-hmm. booy donc sur ce plan là il faut mu am ay jéego yoo xam ne danañ ko ci def yu am solo yi mën a tax suñu xel dal c'est pourquoi nous on s'est beaucoup intéressé euh, à la loi de finances rectificative parce que gis nañ bu nekkee ni bëgg nañ jël en charge accords yi ñu signé woon yëpp war na mën a feeñ dessiné ci loi des finances rectificative donc loolu pour ñun moom mooy foofu mooy suñu mesure suñu instrument bi mën a tax ñu xam quelle est la volonté politique de l'État par la prise en charge de ces euh, ñun daal li jàpp mooy am nañ ñetti weeru vacances ñetti weeru vacances du pour secrétaire généraux yi du pour ministres yi nañ ci profitoo pour baral mbir yi nañu fexe ba déwén ñu jàppale ñu ci ay respect de respect non respect des accords yooyu yëpp mu mën a xew nañu fexe ba monitoring bi ñu waxoon ci accords yi ñu mën ko jëfee ba nga xam ne nag Sénégal nag dana commencé nag di gént parce que du gént war na mën a nekk am nag ay résultats yoo xam ne dafay tolloog bëgg euh, niveau culturel bi réew mi. toll Euh, Aïcha ci monitoring bi est-ce que foo nga ne l'État est toujours dans la même démarche pour fexe ba lépp loo xam ne signé na ko comme accord mu respecté ko. Mm, tout à fait waaye ma ma wax sama xarit Dame rek mu génn politique ci débat bi. Ah parce que souvent yaa ngi wax affaire terre euh, mille milliards affaire France yooyu indiwuñu fi li fi indi mooy wax euh, njàng mi jàngoro bi ci nekk ñun état la ban saafara lañ ci am. syndicat ban saafara la ci am société civile ban saafara la ci indi président Macky Sall deful la dara da ngeen dem élection ñu génn arrêté ñu ko amul 10 pour cent dootoo dootoo toog ci table de négociation. waxuñu loolu wax si dama la déglu ba nga tax ba nga taxaw. loolu rek ma baxal parole. je ne parle pas de donc amoo 10 pour cent bokkatu table négociation la boobu ba léegi. façon sànni xeer bu ne yaa ngi koy sànni xeer <laughs> mais président Macky Sall deful dara gouvernement bi deful na dara da ngay dem nga liggéeyaat sa syndicat nga am mbooloo bu prochaine élection nga am 10 ci kii vraiment. <laughs> alors pour dire non ça c'est trop facile quand descendre aussi bas quand même jamais parlé de ces questions là on parle de choses sérieuses de questions très techniques soo ci amee ay réponses tu les donnes parce que man ay questions yu précises la laa wax si tu as des réponses alors je vais avancer maintenant ci euh, euh, euh, ci ci maintenant ci xam nga ci résultat yi lu koy expliquer il faut ñu gërëm enseignants yi parce que enseignants yi souvent seen grève ci classe intermédiaire lay nekk souvent ñu am na ñoo xam ne ñu grève classe d'examen. d'examen mooy seen 2 ak. troisième ak terminal ak ñoo xam ne même suñu si grèvee da leen di jël à des heures non ouvrables kon loolu il faut ñu gërëm ci enseignants moo waral. nga gis yenn résultat yi. Mhm. Euh, moo ko entre autres loolu moo koy expliquer mhm. donc ñu ngi ciy gërëm enseignants yooyu bu baax a baax di lañ naan aussi bon ñu bàyyi xel classe intermédiaire bi parce que loolu mooy waral xale day ñëw avec un niveau très faible. mu mhm. war a renforcer partout. maintenant ci euh, euh, négociation yi je pense que lu ñu fi wax rek ñoom lu ñu fi wax rek le gouvernement tàmbali na ko lu ñu fi wax bu dee mise en solde chaque année ak rappel. Euh, direction de la solde am na plateforme boo xam ni chaque mois mu ñu def liste mhm. ñi nga xamante ne bi ñooy euh, bénéficiaires yi mhm. euh, bu dee fonction publique guichet unique wax na ko parce que effectivement man je ne jamais de dire que problème jàngalekat dëgg-dëgg problème carrière la dañoo bëgg avancé et c'est et légitime mhm. te loolu depuis opération coup de bi gouvernement bi lu mu mën mi ko ciy def chaque mois c'est vrai que mën war nañu mën a yokk rythme bi surtout nag ci mise en solde yi parce que mhm. euh, actes yooyu yëpp euh, li muy généré mooy des droits yoo xamante ne bii dañ ko war a consommer mooy xaalis parce que bu ñu defee mise en solde xaalis la bu ñu nee rappel xaalis la donc euh, mais c'est des c'est, il faut dire que nag c'est des sommes très conséquentes très conséquentes te gouvernement c'est un tout parce que éducation la santé la Euh, leen leen ak leen donc parfois gouvernement day def ay arbitrage donc mooy waral yéex-yéex gi te it du ñu du ñu France du ñu Chine du ñu ci Sénégal la avec euh, des moyens très limités loolu aussi na ko ñëpp xam nangu ni euh, le gouvernement a beau vouloir mu def lu mu man à 100 pour cent du ko mën accords yi mënuñu rek tey jii ci àllarba ji ci 6 heures ñu dajale accords yëpp respecté ko ak en moom déedéet dynamique la pour man donc point boo fi jël gouvernement bi ngi ci mu ngi ci mi ngi ci avancé du ma ñëw ci passerelle yi parce que ñu ngi ci chaque mois ñu dajee ak ñoom ak seen avec G6 ñu waxtaan ak ñoom ci ci ci ci loolu donc passerelle bi xam nañu bu baax li ci li ci nekk incha allah peut-être saafara dina ci dina ci am encore il faut faire la différence entre un budget voté et un budget exécuté parce que gouvernement bu voté budget pare day wuti xaalis bi ay taxes la ay impôt la peut-être ay ay ay don la ay ay ay ay prêt la donc euh, souvent bu fekkente ne bii nag euh, li nga li nga li nga li nga ramasse ci xaalis ci ay recettes bon comme lu dépense yi moo war a difficulté yi. te yooyu dañuy mais boobaa lan ngay def. Euh, s'il vous plaît kii daam man dama bëgg rek ñu def débat parce que. non bon on peut. à ce rythme-là je suis plus fort que toi vraiment. je plus fort que toi. non je voulais juste rek nga expliquer ñu lay. donc. c'est-à-dire bu fekkee dañu voté budget à l'Assemblée nationale ba noppi exécuté wuñ ko kooku lan la ñu war def loolu rek laa laaj soo ko mënul mën nañu la expliquer lan la ñu war def mais mënuñu wax ni budget bi 16 milliards la en 2016 18 milliards en 2017 day nekk détournement d' objectif bu dee ligne budgétaire bañ ko waroon def muy DMC defuñu ko dem def ko feneen sans ñu préciser ko dans une loi de finances rectificative donc loolu lañu bëgg a leeral rek mais du leneen c'est-à-dire que fii nekkuñu fi def un débat boo xam ni ay ay ay ay caaxaan lañ fi wax donc nous parlons de choses très précises et très sérieuses. merci Moustapha. merci merci Pape donc gouvernement bi wote mhm. ñëpp lay wotal budget. baykat yi sàmmkat yi nappkat yi jàngalekat yi donc wuti xaalis bi su ko amee nag di séddale dugg ak génn noonu la dem parce que nag vraiment nous sommes un pays pauvre encore une fois nous sommes pas la France nous sommes pas les Sénégal la ñu nekk fii ci Jolof am ay difficultés pour euh, di exécuter suñu suñu budget ndax xaalis bi dajaloo ci jamono ju ñu koy ju ñu bëggee donc pour dire que foog nga may may comme ñoom. ñaar lañu may xaw a non non mais ñoom mais xam nga bon on a le temps de. donc ma terminer. parce qu'il m'a coupé malheureusement deux fois. pour dire que le chef de l'État euh, li nga xamante ne bii décidé décidé na ko ci euh, après assise euh, nationale l'éducation mu ngi ci mi ngi ci donc amul kenn ko bëri d'accord nañu nii boo joxee ñu def étude boobu parce que dañoo d'accord nii am na ay kii jàngalekat yi ak ay agent d'état am ñoo xam ñu leen fay wax dëgg yàlla euh, rémunération bi baaxul war nañ koy yokk ñun ñëpp d'accord nañu ci mais nag dañ koy continuer ci waxtaan ah bu ñu yàlla dimbalee ba ñu am moyens yi bëggoon nañ di fay un minimum de 500000 francs à un enseignant loolu kenn bañu ko mais nag day fekk ci kaw ñu ñu mën ko donc ñun ñëpp nañu delloo si suñu sunu xel parce que bu fekkente leen dig loo xamante ne bii lee mënta nekk. yéen ngeen di laaj li mënta nekk su boobaa aussi du du sotti. Sawra euh, merci Pape dafa am ay clarification yu mu bëgg def gis nga d' abord li concerne passerelle professionnelle yi je crois que sur ce plateau boo amee quelqu'un de mieux placé pour en parler c' est moi vous savez pourquoi parce que passerelle professionnelle yi comme corps des administrateurs scolaires les inspecteurs de l' enseignement moyen secondaire ak les CRFPE c' e, est en 2011. que suñu organisation syndicale le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire xeex bu ñu am accord yooyu lan mooy passerelle yi passerelle yi dafa am ñaari mbir dafa am des agents yoo xam ne amuñu le diplôme académique mais war a jàll à un niveau supérieur maanaam un PCMG qui n'a pas la licence mais qui doit après cinq ans devenir PM PCMG boo xam ne am na licence mais moom bu mu duggee ci njàngale mi moom niveau bac bi la duggee donte entre temps am na licence bi. ñu ne ñi nga xam ne amuñu le diplôme professionnel ñooñu pour ñu am passerelle yooyu il faut ñu def le concours parce que amuñu diplôme académique bi bu ñu defee concours bi ba réussir ko dans leur formation. FASTEF dina ci mettre ay module académique yu leen di permettre ñu am le niveau de la licence am en même temps le CAEM loolu mooy waral concours bi ñi nga xam ne nag am nañu déjà seen diplôme professionnel mais que dañ nekkoon à un niveau inférieur te ñu war a dem à un niveau supérieur ñooñu dañuy classer seen dossier sur sélection pourquoi la notion de concours très, mais ñëpp xam nañ ni très rapidement Pape Alé c'est des postes budgétaires qui sont mis en jeu parce que boo waxoon tey tey tey que tous les professeurs de collège qui ont le niveau de la licence dama leen di yéegal ñoom ñëpp ñu dem niveau KM wala tous les professeurs de lycée qui ont la maîtrise mhm. ñu war a dem directement ñoom ñëpp PS il y a des questions budgétaires qui se poseront c'est pourquoi il leur faut ce concours là ñu jël ci ñenn cette année l'année suivante ñu jël ñeneen parce que le concours est annuel ça n'a rien à voir avec un concours professionnel beneen élément bi nag moo wax ko euh, je suis tout à fait d'accord avec Dame sur la question du DMC et des des des impôts sur les salaires les DMC. ci wolof ci ci DMC yi. mais dëgg la y' a quand même monsieur le directeur benn détournement d' objectif. bu leer 2016 16 milliards prévus dans le budget 2017 18 milliards point 100 prévus dans le budget alors que année yooyu kenn fayul kenn DMC. c' était un blocage total. bu ñu débloqué kay nañ ñu wax xaalis boobu fan la jëm ensuite deuxième chose mais DMC dafa nekk un prêt revolving maanaam ñun ñu ñu lebal. chaque année chaque mois dañuy fay loolu ñuy fay moom la ñuy jël lebal ko ñeneen kon kay prêt boobu warul woon am rupture ah, beneen élément bi mooy impôt sur les salaires wax nañ ko dëgg moo neex yàlla bu ñu toogee ak monsieur le directeur du budget ak directeur de la solde dañ ñu wax ni carrément li ngeen di wax ni wax dëgg même bu dee dëgg la ñun mënuñu ci dara parce que c'est pas notre domaine il faut ñu créer une rencontre ak la direction des impos et domaines. comme ça ñu xool le système de la fiscalité naka lay demee parce que nag vraiment dafa nekk situation boo xam ne tey kenn mënu ko expliquer tey tey tey jàngalekat bi boo ko joxee 3 millions ce mois si ba fin d'année lu muy fay impôt mënu ko wax kenn xëy na nag. mun naa wax ni peut-être c'est pas que les enseignants c'est les agents mais je crois que dafa amoon jamono boo xam ne dañ dem vers la baisse de la fiscalité mais baisse boobu dafa mel ni on a tout remis non seulement dañ dañ dolli lu bëri mais mais nous sommes à la fin de l'émission nous la fin de l'émission mënuñu jeexal ki bi mais on va suivre ah l'émission aussi suivre euh, euh, li nga xam ne moo di protocole bi maa ngi koy xool maa ngi koy xool di Mohamed Moustapha ngeen woowaat gars yi ak le premier ministre ngeen defaat beneen monitoring xool far ngeen ci yem ak tamit sous le contrôle de la société civile ak euh, ñoom daam ak ñoom ñu waxtaan parce que li may wax rek nañ waxtaanee lépp tous les problèmes balaa octobre nga xam ne duñ fi ñëwaat di wax ne respect des protocoles respect des accords ak yooyu man nag wax naa man maa ko diggoon téléspectateurs yi dig ko ñëpp ne leen protocole bi maa ngi ko téye mois d'octobre mois d'octobre am na yeneen point yu ñu joxul waaw am na yeneen mais dañ ko continuer Seydou Seye on peut revenir sur les actes yoo xam ne am nay avancé mais daam da ngeen toog xam nga da ngeen toog ma woo toogaat leen rek dinaa leen woo woowaat xam nga da ngeen da toog rek ma woola woo sawru na leen kaay leen ñu waxtaan toog leen ko rek poñ yi mën nañ ko ubbi parce que ñun lu ñu soxal man boog defe naa ne ba ñuy wax ci éducation ba tey ba ñuy wax c'est pour que ñëpp ñu ñëpp acteurs yëpp nekk ci jàmm. duñ fi nekk di wax kii am raison wala kii ma parce que jàng dama jàpp na dafa am solo ci réew. moo jiitu ci lépp. te ñëpp nag moo nekk secteur boo xam ne waruñu jëm ci année électorale mu am perturbation. ak santé. dafa naa loolu lu am solo la. leen sant di leen gërëm di leen dig dajee ci beneen émission décryptage àllarba incha allah.